Bizarre. mbokk yi ñu ngi fii tey si biir Banjul ñu ni Banjul Mok Road foo xamante ne Christmas bi foofu lam dee xapp ne celebration Christmas foofu lam dee amee ñu ngi la jaajëfal di leen dalal fii si um, Sahel Network TV tey nag daal lu ñoo def rek xanaa ànd ak yéen si biir Banjul Mok Road foo xamante ne Christmas celebration foofu lam dee nekka ñu waxtaan ak waa Banjul naka leen dee celebrate soo woote ak kenn si ñoom si organising committee bi la mu wax moom naka la gay gisee Christmas bi this year ak seen celebration bi salaamaaleykum oncle. maaleykum salaam. ñu baala rek nga wax sa tur ak sa rôle fii nii. man maay Ibou Faye man amee co-organiser of the programme man maa Sol Sow ak of Art ñoo dee organise programme bi. ok yow oncle naka nga gisee like am organising am Christmas celebration naka nga ñu ko mën a waxee. tax ngeen di waaw am nga Christmas dafa mus di humba Banjul ñun bi ñoo juddu bi ñoo nekk xaleel Christmas was a big occasion in Banjul so bi ñibsee ñu gis ne things we are dead Banjul was not xam nga that active apart from the hunting societies you have to give them lot of credit because ñoom rek ñoo daan organise programme ñun ñu decide ne nañ something else as a compliment si ñoom li ñoo def pour ñu mun a make you know Banjul xumbaat na neex you know everybody koo xam ne yaa ngi in in Gambia da ngaa ne adama ñëw Banjul pour mun a enjoy sa moo tax ñuy organise these programmes waaw ñu ñoo ko déggandoo loolu loolu jërë ngeen si jëfin boobu noonu léegi yow ndax nga ñëw mun a jëriñ seen organising si organise Christmas bi this year because this year is different from previous years. waaw this year is different because of the corona. even last year dañ daan am one or two sponsors Why this year even trying to pour waa sponsors because of the economic challenges here. yi business yëpp di face But you organise a very low key programme mooy tey nga xam ne dañoo am music hunting yi few hunting yi génn dinañ ñëw perform then elect ñu amad music i am hunting But pare uh, after eight o'clock ñu am um, uh, samba soxo then on the first, ñu am um, zimba ak taana bi you know so this year you ñaar you're ñoo finance whole programme pour mu mun a am. léegi yow oncle dafa ni yow nag di nga si affaire bi de. di nga yàgg si affaire wantil celebration Christmas bi. waaw waaw nga dafa war ñun suñu xaleel yaa dañ ko enjoy it was rich culturally you know time boobu noonu da am all kinds of uh, uh, uh, cultural activities you know ay ay ay ay ay Zimba ay Kumbo ay Mama you know you everything bon léegi loolu yëpp ñu ngi ko lose danka danka but you have to give credit to the hunting societies because without ñoom Banjul deeyoon na so ñun dañoo compliment li ñoo def rek. léegi oncle da nga wax yow si celebration bi ban part moo nekk sa favorite foofu man Samba Soxo bi mooy suma favorite. boobu naka lay paree def xam nga man xaw ma. Samba Soxo Samba Soxo xam nga ñun du ñoon ñun ñun dañ dem lël yoo génn lël dañ laas defal Samba Soxo. will celebrate again a little. pour wane ne you are moving from one level to another level in life so dañ dee am wake yi fii ak that's a very rich cultural programme tomorrow Samba Sow woykat yi yëpp then fee nekk woy and it's it's excellent man boobu my favorite Yeah, man mënuma woy mënuma woy man suma baat bi suma baat bi neexul sax pour woy <laughs> ok jërëjëf dégg nga ok mbokk yi ki moo nekk Oncle moom moo organise programme bi ñu ngi ko jaajëfal di ko di ko kontaan nañ trop ci celebration mbokk yi ñu ngi nii am um, Mox Road xamante ne foofu la celebration bi dee am lu ñoo def rek ñu waxtaan ak suñ broda si fii nii tam ñu wax leen lan lan la gaay am yegg si Christmas bi tey oncle naka la yaa ngi cool ma ne ma ne eh, <laughs> yaa maa ngi cool maa ngi cool maa ngi cool sooy cool yaa maa ngi cool so tey gis nañ ne tey Christmas celebration mooy xew fii nii tey naka nga Christmas bi ah président nu ma filee daal xanaa xanaa li ko fekkee si jàmm xam nga you know affaire si nee trop te dooragu sax so am nga si ma gars yi nag man fii laa juddoo Glonsta fii laa yoroo voilà ma toxu Kombo nag bu ma ñëwee ba léegi Kombo laa dëkk so Christmas nag foofu ma ñëw seet si leen naan def seen taami xale te du waaw suñu taami kan suma ji suñu taami xale kan li fi def kenn du ko fi def amoon naa fi club bi xontin boo ne moom baa ñu yëpp fi toboon <laughs> ok yow si Christmas celebration bi yëpp hmm. ban mooy sa favorite foofu noonu ah suma favorite man lu ma gën a like si Christmas la naka la gese dañ ko liggéey comme daf la mel ni séet rek séet waaw it's nice moo moo moo daa hunting waaw parce que gese moo gën a civilisé xam nga hunting dafa bëri too much things loo si lay def xam nga soo paree ba pare nga yokkal ko si duutiir <laughs> so you know waaw man gese laa gën a like gese moom lu rafet la dafa rafet trop you know so man moo suma fee moom laay gàppal sax fu mu nekk nii fu mu génn si waa gisaguma leen ba léegi. Ah, ana su ñëwee nag di nga waaw ñoom su kese bi ñëwee dañ ma lay jox sabar bi pour ma pour ma tëgga. dañ lay woy. waaw dañ lay woy yee. waaw looloo mm. ñu tuuti ñu seet. non waaw boobu. kese woy bi tuuti rek da nga ñëw ñama xaal tuuti waaw bàyyi boobu ma woyal la. <laughs> boobu after na la woyal leen bàyyi boobu na la woyal after baat bi neexut. Ah. waaw fu nekk baat baa ngi dee. waaw baat su kese bi ñëwee moom I promise you man I la Fuck my will. weel la. waaw baax na bi boobaa. waaw dinaa bàyyi xel su gafee mi ñëwee rek man dinaa ñëw si pour nga weel léegi tey promise. yeah. jërëjëf Dya waaw ok waay ah, uncle yow tam boo ñu yaay kan wala broda. non boo si wax rek baax na Aliou Diagne. aboy nag maa daw ni léegi waay. man Christmas ah Christmas mom at bu nekk nii rek ñu dimbale suñu mbokk christian rek comme ñu gaay yi di dimbale si tobaski yoy nonu so jappalé gaay yi célébrer affaire yi mu neex rek mbaa ñun moom nii la mu samel mom waaw. légui yow ci Christmas celebration ba mo nek sa favorite part bi. waaw ah. mi xalé ban nga don am yaxanti mu ñew ban ban nga don rité bu ba yëpp ané ne yëpp. bu ci ñew rek nga né bi mo da waay waay bu nek na ku nek na dafa and nga am sa favorite foofu légui wax ñu sa favorite. wa waaw comme ki ñu nga gessé dal mo leen légui na enjoy. gese bi da ngeen ko dee enjoy de waaw dañ bu ñëw fi ay reen boobu lañ mi noonu ñooy noonu mooy gese society waxale Gambia yooyu noonu soo gese lañ daan gën a enjoy ni xontin daal mm. waaw waaw yëpp a daal ok christian am na ku ma fare nag waxuma ko mooy sang dong <laughs> sang suma kóoc ak ndem si yàlla joo waaw joo Gomez ni moom dafa gaañu nag ndeysaan ne ko yàlla ne ko yàlla yërëm waay waaw a ñoom saan topp ñoom luwi topp mm-hmm. ñoom nag mis naa leen nag so ñu ñëw suma waaw hmm? ngeen nekk am jullit di jàppale christian yi pour célébrer bis bi tey léegi naka ngeen naka ngeen fiilee loolu noonu comme gis naa ne daal am humanity bi mu ngi daw fii non xam nga xam nga bañul nag bañul dafa nekk town boo xam christian ak jullit yi ñoom ñoo bokka so ñu suñ man school christian laa dem so doo lay xam soo nekkee si biir gaay sax doo lay xam ne kii mooy christian kii mooy muslim so because bañul dafa nekk christian yi ak muslim yi day nekk benn su ñëwee su tubaski ñëwee ñoom ñu ñëw su Christmas ñëwee ñoom ñu ñëw su gaa amee ay fausse communion comme seen li fi nii daal programme yi suñ ko amee foog ñu invité ñun jullit yi soo doo lee xam nag kii mooy jullit o kii mooy christian bañu nii la mus nag nii la mus di mel waaw doo lee xam christian yi ak jullit yi soo dañ nekk benn dañ nekk benn so loolu moom is nice is nice trop laaj naa loolu trop respect Sahel TV ok one thank you <laughs> ok mbok yi ñu ngi nii ba léegi Banjul fii celebration bi fu mu nekk di apoon léegi ñu fi re ak suñu yena bro day bro na xam ngi fay na def yama re rey naka sa naka nga tudda Paa Ousmane wa Paa Ousmane yow wa Banjul nga wa wa Banjul la Ousmane tey nga gisee sa am Christmas celebration bi fi ah yi daal xam lu mu nekk aajuma la this time Mota affaire ci life because ay julit lañ so dañuy xaar aajuma bi bem romba suba comme xontin yeeg gese yeeg kankura ngi ni ñu ko daan ñu génn suba muy samedi incha allah su neexee yàlla di 26. yow nag si xontin bi ba ba moo nekk sa faible foofu because gis naa ne tey danga sol caaya xanaa caaya bi yow pour comme pour pour <laughs> non déedéet déedéet dafa celebration bi non just ajuma la rek ma seeral ko rek sol suma caaya waaw. nga nga caaya ko nii si aljuma bi rek. waaw léegi yow si celebration ba moo nekk sa part sa sa sa favorite am lifin. man hunting like. hunting bi yeah hunting laa gën a préfère daal. yow tamit boo nekkoon xel boobu nga doon topp. hunting bi daal moom laa daan topp ah kay. maa doon doon topp hunting bi réer kay. non musuma réer because fuñ dëkka ñun fii lañ dëkka so mun loo réer si diggante bi fii lay bañu foo laajte rek. koñ yi bu nekk koñ bu nekk dafa am tur soo Banjul soo waree réer fii nii tam ah ne la ko war a laaja léegi yow si woy hontin bi doo ñu dooral benn rek non boobu moom nag aayu ma si woon nag woy hontin yéegee <laughs> loo aayoon feeca <laughs> man dama daan box like <laughs> kon box ñu ñu seet naka laay boxee te amee ma bëgg bi waaw ah, ok jërëjëf Fatma xam te nga ne yaa ngay dem julli dañ laa bàyyi rek nga dem julli mais bi soo ñëwaatee din din nel na la bàyyi xel su ma gisee yaa ngay yëngal sa caaya bi nii rek di den ñëw si yow ah, bro naka am. maa ngi cool. nga tudd man Fallou Ngom. Fallou Ngom waa Banjul. waaw yow waa Banjul la. Fallou Ngom tey naka nga gisee am Christmas celebration bi. waaw comme ni ko Ousmane waxee rek moom fii daf dee live li always Christmas waaye comme ajuma bi nu lii moo tax comme mu xalal lii waaye comme soo ñëwee ëllëg di nga gis na comme daf dee live li daal waaw. léegi yéen daal dafa mel ni dégg ngeen ko pareel ëllëg nag. waaw obviously mbaa doo sol caaya. non ëllëg du ma sol caaya ma moom xam naa bëggoon naa ci loolu ji nag waaw sol suba mbéy ko def ba mu baax dem boo ëllëg su boo amee bëti da de sax sol ko <laughs> bëti rey de yow yow ëllëg dinañ fi ñëw ëllëg dinañ fi ñëw ëllëg du yomba léegi léegi yow wax ñu la ba ba moo ma ma xelen daan daan toppi hontin dan tiga wala den man maa moom moom moo daan box man maa doon tiga maa sabar bi yow tam doo dee woy non non ñun tiga <laughs> rek lii moom maa daan tiga moom moo daan box ah. waaw waaw ah, baax na xontin bi su ñëwee dinañ jël caméra bi nga nga nga li feñal ñu ëllëg tëdu ëllëg di nga tega waaw ñu ngi xaar ba Yo. ñu ñu gis la Pa Ousmane Mariama yow Yo. yow Lika yow Famata yow Famata noo <laughs> yow naka nga tudd Awa yow Fatou Dawda Dawda Alaaji Alaaji man Sanosi yéen yëpp Banjul ngeen deka? waaw yéen a hunting bi. waaw ëllëg lan ngeen a sol. tiisaat tiisaat ak lan. tubéy da ngeen am ñamba ñamba kawas? waaw hee léegi xam nga lan laa bëgg ngeen defal ma. waaye ma benn wuy hunting rek ma dégg acca acca way leen way leen way leen. Ah, kii bi mu ngi wàcce wayal wayal. ñaaña takandoo. bay kër gi ni ngeen di fekkee acca wayal. ñaaña brekas nyatakan lo, nyam nyatakan lo, brekas nyatakan lo, nyam nyatakan lo. brekas nyata kanur, nyam nyata kanur, brekas nyata kanur, nyam nyatakan kanur, brekas nyatakan kanur, nyam nyata kanur, brekas nyata kanur, nyam ko gisee xale sax ñu kon